bu ñu la nuyoo nuyu mbokk Sénégal yépp yi ñuy déglu nga may ma tuuti rek ma nuyu sama sëriñ <laughs> Sidi Lamine eh, nuyoo bu ànd ak ziar ci kasu rajab bi ñu nekk di nuyu aussi le professeur sànqare ñoom ñaar ñëpp dama leen a ameel àllarba ndax bis bu ne ma jànge ci ñoom jànge ci seeni wax moo tax tey dama ñëw indiwaale sama àlluwa pour jàng que jataay bu mel nii ay borom xam-xam yu mel nii séq ko di waxtaane loo xam ni itam dafa bàyyi ko ci boroom xam-xam bu borom xam-xam seedeel xam-xamam loolu je pense que dafa war ku nekk